futanke yi moom moo def mom mo tojlu sama caméra non pas tojlu toj sama caméra jàpp sëriñ certificat médical bangi fi ba léegi ah. moom ak ñi andal àndal mu agressé ko ak ay garde corps parce que mm. tout simplement serigne amul droit mu ñu ci ci ci dëkk boo xam ne moom mooy monsieur le maire. Mm. c'est aussi simple que ça léegi waa jooju tey boo àdduna tourné ba mu taxaw ne mom moy protéger journaliste journaliste ñu jël ko mu nekk sen d'artagnan. Mm. ñu tek ko ci kanam mom moy wax des notions de droit mais est-ce que journaliste yi ñoo war a xam fàtte xaju fi xanaa dégguloo ma wax. Mm-hmm. l'ennemi de mon ennemi. Et mon ennemi L'ami, euh, comment on appelle L'ennemi de mon, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. N'est-ce pas, Marisha Non, l'ennemi de mon ennemi, hmm. c'est mon ami. Mhm. Moussa Bokar Thiam, mon ennemi d'or, mon ennemi euh, tëju ay journalistes. même pas cinq mois hein? waaw mais le problème c'est que tey dafay wax loo xam ne dafay tirer contre ñi nga xam ne bloqué euh, la presse bi ont bloqué contrat de partenariat moment. pour le moment pour le moment ont bloqué contrat de partenariat Quoi que c'est non la tey bu dee seen noon bu démb bi ñëwaat na ànd ak moom c' est pas grave mënuñu ànd ak moom. moo tax peut être. moom buy wax protection de des journalistes euh, a quelque temps ndeysaan damay fàttali Ibrahima Lissa Tine benn jour mhm. mu ne ñu il faut ñu jóg parce que bi ñu arrêté Pape Alé ñoom ñëpp ñu ngi ne tekk. ak ba muy coupé signalu Walf. ñëpp dañu ne tekk. Mhm. kii mu signalé ma euh, Ibrahima Lissa Tine Ibrahima Lissa Tine Lissa. c'est ça non c'est pas Tine. De fay. sa Lisa Faye. Lisa Tine sama xel Lisa voilà Lisa. <laughs> vraiment Lisa Faye daf ma envoyé message ci Souf. non daf ñu réunion il faut parce que grand yi dañu une sacrifier. Mhm. Pape Alec. de ci liste ma Babacar Touré Pape Pape Sané Pape ainsi de suite yi ñun ñu neutraliser nous nous Ibrahima Lissa vu ses relations avec Pape Alé dafa moo mu il faut que nous organisions. les mhm. li ko mooy grand yi nañu sacrifier parce que nous bouger ñu woote une réunion à la maison de la presse euh, euh, comment il s'appelle euh, Thior mhm. ma fa nekkoon Bamba Kassé était là mhm. ci nous, nga xam ne maa ngi leen di gis ci plateau yi ñu ne dañuy défendre presse mais ma kan laa si gis Mamoudou Ibrahima, Kane bu E-Media moom Kassé moo ñëw suñuy assise la ñun ñii la ñu nek même génération ñu nek ay morom je me rappelle amna kenen encore ko xamné c'est CESTI la nekkoon c'est un journaliste journaliste de formation mais dafa détaché malgré que mu ngi liggéey dans l'administration il prenait des risques. Mm-hmm. mu ñëw fekkee euh, la nga xamné moy mooy réunion pour d'appeler journalistes mm-hmm. pour vous dire tay di bu ñu toogee ñu ne dañu euh, dañu at dañu dañu sonal journalistes motax ñom tax ñoom ñu Souleymane Diop laa bëggoon a euh, laa bëggoon wax. Mm-hmm. Diop manque une de passage beaucoup malgré le fait qu'il soit un fonctionnaire. Mhm. mu corporation bu amé problème dina ñu ma taxaw mhm. des ils étaient restés dans leur coin bobo ñu ngi ñu ngi ñu ngi bundu ay journalistes. Mhm. Babacar Touré euh, euh, comment s'appelle Saliou pour la petite histoire. man ak on a euh, balance. Pape Pape. Pape naa sant bi. bon Pape Ndiaye. Hmm, Pape Ndiaye mais Pape Ndiaye c'est après. Hmm, hmm. ki ma lay wax Serigne Saliou la doon wax mom mo ngeen ci plateau Ndoumbelane bi. ba finalement dafa mujj quitter mais voilà biñu ñu visé nga xamné ñun defu ñu dul informé parce que ñu waxuñu ñu ci liberté de la presse. ñu ci entrave à l'action des journalistes. kaasuñu ñu ñom absa absa absa ab bu jigéen bi nek ab web biñu di dóor ak tout ça ñi dañu ne tekk noppi. ñii li leen tax a jóg mooy seen poche. Mhm. bi ñu laalee seen poche rek lañ commencé wax. Mhm. donc moo tax ñooñu képp ku leen def la leen euh, Waly boo Bodian def dana leen ngawti ngawti matin midi soir mooy nga ne leen dagg naa contrat de partenariat yi. Mhm. c'est aussi simple dana nu wër nag.

nekkuñu woon ay patron de presse amuñu pat amuñu presse moo tax mënuñu woon def patron mënuñu def journée sans presse. ci bi ñu jàppee Pape Alé Niang. dañu organiser marche. dëgg la sunu mag ñi fekk nañu fa mooy ñoom Mamadou Omar Ndiaye ñoom doyen Bakhoum ainsi de suite mag ñi ñëw nañu. parmi ñi ma gisoon keroog ci foule bi bu fekkee ne juumuma benn patron de presse bu mag bu nit ñi ràññee. boo xam ne mooy mu Mamadou Omar njaay bu témoin en de moom ñeneen ñi. koo xam ne nañu moom patron de presse la gisuma ko si. donc tay woote réunion di dajé nan la presse est menacée journée ainsi de suite. Mhm. du nit ñi nga xamné ne bi ñuy dóor nit ñi bi ñuy nit ñi dañ ci participer au contraire sax. Mhm. amoon ben panel bo xamné man dama ci duggoon free free free free presse lañ ko tuddee won mhm. dañ ko jikko tuddee libéré Pape Alé ensuite ñu tuddee ko free presse. finalement dama ci mujjé génnee sama bobu sen panel yi ne bokuma parce que lu ñuy wax fofu c'est simple. Euh, euh, journaliste li ngeen def du liggéeyu journaliste. Mhm. journaliste du du nek position bi ngeen taxaw. Mhm. donc en quelque sorte vous êtes des pastifs wala vous êtes vous êtes contre le l' mhm. dañuy ñëw dañu ci panel bi. ñuy xulul di werante fa ak ñom finalement comment mënu supporter won da ngay dañuy nek ay ñaar ñet contre une quarantaine ou cinquantaine de personnes. ma génnee rocci ci sama numéro ma dem sama yoon. ce qui s'est passé ça veut dire vous n'avez arrêter arrêté journaliste dañ leen di informer ñom ba pare ñu ne leen jàpp leen ci ñu bokk si ñi nga xam ne ñooy diaboliser les journalistes tañ nag ñun ñoo taxaw kenn jàppu leen kenn dóoru leen kenn fitnaalu leen. Mm-hmm. dañu ne contrat de partenariat yi et puis yàgg bi leen dóor dóorale na ma. Mm-hmm. man benn 7 millions 500 laa am te bloqué nañ ko. Mm-hmm. mën nañ jàpp ne ah, mais comme épargne wuñu kenn en fait. amul kenn parce que déggoon naa benn tappalekat ci benn jour nee na. Babacar Touré mu ngi wuti pour recruter ay journalistes parce que dañ ko jox alal ju bare. Mhm. xam nga ma ne ko amin yaa rabbil alamin peut être dafa gis. Mhm. naka laay def ba ma diversifier. la nga xam ne moom la kéwul def parce que man am naa yeneen liggéey lu bokkul ak lii nii di toog matin midi soir di wax. ak di xool matin midi soir di bind am naa leneen lu may def. amna solo alors mari bu amna benen question. man kay lu ma jaaxal lan moo tax journalistes ñom ils sont pas solidaires lu tax mun ñu booloo doon. waaw waaw amul benn say. parce que ñun loolu tam dafa métti ba tax sax ba ñu defee journée sans presse bi. askan bi yëpp né c'est une journée sans pression et que mën nañ ko continuer bu leen neexee. waaw mënuñu mënuñu and parce que man. kenn du def sa tapalé nga ne ma kaay ñu and ci sama tapalé té bu ma doon wax dëgg na la lii mooy dëgg bi yo xam nga ni lii dëgg la nga ne sa yoo ci.

seen seen prérogative la seen sañ-sañ la lu la neex la ñuy def mais man li ma xam mooy entreprise laa yor de presse mhm. pas comme ñëpp parce que man am na loo xam ne bu ko sama éthique ak euh, déontologie permettrul mhm. du ma ko def déontologie mais surtout sama éthique mhm. parce que lan mooy éthique mooy nan la yaree sa yar sa biir kër éducation bu la jox société bi lim la nangul ak lim la nangul moy éthique. Mhm. légui déontologie nak mhm. moy métier ba nga nek lan lay laaj ak lan la téré mhm. donc ñaar ñoñu bu nu bu man sama éthique ak sama déontologie ana na ci dara. dama ci dem sans réserve. lénen duma ci dem. Hmm. Euh, dinañ ko am tout à l'heure euh, laata ñu koy am nak ñu wax ci benen euh, ponku jëm ci li nga xamantene moy scandale Babacar wala mënuma ko tuddee noonu affaire u Cheikh Dieng bi ak docteur euh, Cheikh Tidiane Dièye bi nga xamante ne plainte euh, Cheikh Tidiane def wax na la koy euh, def contre Cheikh Dieng bi nga xam ne dafa génn.